amul problème Mame Matar Gueye la ñu la ñuy invité waaw cinq la Gueye waaw maa ngi lay fay euh, di leen nuyu di nuyu mbokk yi yëpp. Mm-hmm. di rafetlu teewaay bi nga xam ni teew naa ko ci plateau bi. Mm-hmm. di rafetlu bu baax a baax a baax. Mm-hmm. jërëjëf. Mame Matar Mbaye yaa ngi tane bu baax a baax. waaw maa ngi tane. macha allah yaa ngi tane alhamdulilah. Mm. Euh, kaddu yu Cheikh Yérim yëkkati. li mu wax yëpp dara du dëgg waaw li mu wax yëpp dara dëgg du ci dëgg moom xam na bu baax li nga xam te ni bii moom laay wax. mais yow lan ngeen jotee ba indi li ba am lan ngeen jotee ba lii am dama bëggoon a xam loolu lan ngeen jotee. ma ne jotewu ma ak moom dara. Mm-hmm. dafa toog ci plateau télé yi di wax ay contre vérité. Mm-hmm. wax dara amu dara du ci dëgg may wax muy dem. di appuyer ay góor jigéen loo xam ni waxoon nañ ko ci sama doom des lobby Mm-hmm. homosexuel mm-hmm. yoo xamante ni bi dañu taxawoon yàq sama der euh, sama deru doom bay mm-hmm. wax muy ñëw di wax loolu kii wax na ko sànq ci plateau bi doomam bi jaar na fa way kii ba jaaroon fi lan ñoom mooy loolu li ma wax bugguma tontu moo tax ma wax loolu doom ji lan la defoon waaw doom ji lan la defoon doom ji lan la defoon waaye doon na mu dëgër fa laa yem man xaw ma lool de man xaw ma. sama bopp day metti. falaa yem waaw sama sama bopp day metti. mais li nga wax da dafa garaaw. waaw parce que danga nga ni lu waay doon na mu dëgg. ma ne li may wax wax naa ko te xam na ko xam na li nga xam ni moom laay wax yow mii xam nga ko. da ngaa bëgg ma leeral toj boo ko xamul téléspectateurs yi xam nañ. ah d'accord mais Mame Matar yow mënoo woon a noppi comme comme. du ma noppi. du ma noppi. mu wër di ma sosal. di wax loo xam ni bi ay contre vérité la dara du ci dëgg bind livre boo xam ni livre bi da ko waroon a tuddee les meew les meew la ko waroon tuddee. les meew de lan. waaw du siècle wala. waaw meew di siècle. Ah. parce que lépp lu mu ci wax ay contre vérité la. may wax muy ñëwaat di wax yoo xam ni bi tegu naka su dul noonu. waaw ah, d'accord loolu loolu métti ba ba nga sa feebar bi nga jug wax. moo tax ma jóg. nit da ngay noppi nit da ngay hôpital laa jógee. bi may ñëw pikiir baa ngi nii <laughs> waaw ah, bul wax dañ ne ma woon bu ma wax dañ ne ma noa ñu wax ma ne lii faaw ma wax bu dee ñetti kàddu laa dese danaa ko wax do to to waaw baatu bopp bu métti la lu baat bopp buy métti la wala may doom may leen mab doom ku ci yorob doom may ma may mab doom doomu lan doom ma naan rek nga naan ko wér waaw